Je dis encore, le président Macky Sall manque euh, manquer une opportunité. Moi, je le respecte, je le respecte, que nous un film. Parce que moi, je suis opposant. Je fatali, ni cher président, de me bugger, je fatali la constitution avec respect règlement intérieur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, sa mbokk toujours ci xex bu nek rek da nga ko war a fa da da nga war a ci wetam ñu nekkon naka moy su waxe deug encourager ko su waxul deug tamit ne ko nekkoo ci deug won ko yoon kon nak mbokk deug deug deug deug de l'exécutif et du président de la république moy ñoo xamni ci sen sañ-sañ ak mën-mën bo xamni yalla yàllaa leen ko jox askan bi jox ko ñuy mëna wax te yalla tax deug bo xamni mom japp nañ ni mom moy deug mais aujourd'hui malheureusement moy kenn amatul possibilité kenn sañatul ni fille ni fenen wax lo xamni andul demul dans le sens donc de gëm-gëmu président ba ci propre parti un propre alliance am mooy kenn amul sañ-sañ wax lo xamni c'est contraire mom fi muy jëm loolu nak baaxul ci rew comme disait Mao monaco euh, que rivalise mille écoles mille écoles mais que fleurissent en même temps de façon harmonieuse euh, euh, que s'épanouissent donc les fleurs de façon harmonieuse mille autres nee amul lésion nee na euh, de euh, maanaam euh, contrairement à ce que euh, l'accusé dit pas pas l'accusé plutôt la plaignante dit nee euh, musul am rapport mais li ñu gis ñun ci PV bi moo di c'est parce que le médecin dit mais xam nga lolu wax man mënuma lu lire le lire li li ma mën dimbali nak moy ma am si vous avez une possibilité de débat de le fond pour une question aussi sensible aussi importante c'est euh, la démocratie dafa un espace de respiration démocratie dafa le ñuy waxtaan euh, suñu borom diversité diversité c'est une richesse et le Sénégal est riche de sa diversité mais il faut que diversité soit exprimée. mais là de plus en plus c'est une élimination systématique de ce qui est am te maa wax ak président de la république mooy moom la fi yàlla may ñaan président de la république su dee am naa chance mu déglu ma mooy mu dimbali askan bi dimbali boppam euh, dimbali askan bi dimbali boppam di permettre en fait que démocratie bi di respirer actuellement ça s'étouffe di étouffé et chaque fois ça s'étouffe Tu place yo xam ne moom la constitution bi jox nit ñi dañuy trouver yeneen couloir yoo xam ni foofu la jaar pour ma an mën a am respiration donc moi je suis un peu de Sénégal mais les premiers responsables nous, ñun ñi institution ku nous une conscience ni nga ni mais dafa donc un politique comme ça détruire dara dara dara waxuma ne dëgg la wala dëgg mais dara setu ci